di ñaan sunu borom lépp luñ fi jaamu rek yal na ko sunu borom nangu te fulal nu ko di ñaan itam ci darajey weeru koor wi tawat ji nga xamante ni bii moo lëmbaaje adduna bi yëpp muy coronavirus bi yal na ko fi sunu borom jële ba kenn dootu ko dégg fenn di ñaanal doomi sénégalais yi nekk bitim réew sunu borom aar leen ci tawat ji ba dégg rek yàlla na ca doon seen wàll yàlla na ñu bokk ci ñu koy nettali ci ëllëg noonu itam lañ koy ñaanale doomi sénégalais yi nga xamante ni ñi ngi ci biir réew mi di nuyu ak ziara bokk yi safoo seen chaîne bi di xam sam réew TV di ànd ak nun ci seen émission bi di xam sam réew ku xam sam réew nag war a xam ñooñ sam réew goxi sam réew ak xew-xew yi sam réew moo tax niñ ko doore woon ci émission yi jàll ñu jëmale ko ci ay xew-xew yoo xamante ni xewoon na fii ci Sénégal àndoon nañu ak yéen ci xareeb ngol-ngol boobu nga xamante ni bii dammeel Lat Joor Ngoone Latiir moo fa bom tubaab yi faat ci ñoom téeméer ak ñaar fukk xeex boobee nag amoon ci ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru décembre ci atum junni ak juróom-ñetti téeméer ak juróom-benn fukk ak ñett le 29 décembre 1863 ba leen Lat Joor wàll ya nga xamante ni bii bàyyikoon nañu ko rek ak ndar ak colonne bi newoon jàmbur te ñoom ñëpp ñu jotoon ndigal ni leen dem leen wallu ji maajoojoo ak ngiis ndax Lat Joor a ngi koy song te Samba Maram Xay ak maajoojo waxoon Laurent ni ko daal jarut ñuy xaar wàll gi ndax nun ñi fi nekk li nu yor ak li nga yor bu nu boole nit ñi Lat Joor du doy ñu génn dem song la dior mu def leen la mu leen def ba samba maram xey ñu japp ko wax ni dafa wor yobbu ko ndar ginaaw bi liñ ko yobbu gore tëj ko ba ba fofé eh, fa la eh, faato ñetti détachement yoy doon ñew di walu ci nak biñu ñu jox ga ki nga xamanteni bi bii doon lieutenant colonel Pinel Laprade te mujjoon doon gouverneur du Sénégal te xeexoon ak tafsir Maba Diakhou Ba ci fanweeri fan ci weeru novembre atum junni ak juróom ñetti téeméer ak juróom benn fukk ak juróom le 30 novembre 1865 xareb Paoskoto wala Pathé Badiate moom moomu te choléra ba faat ko ci weeru août ci atum junni ak juróom ñetti téeméer ak juróom benn fukk ak juróom ñeent le 18 août 1869 le choléra ba gouverneur de ca lieutenant-colonel Pinel Aprat, moom fait ñu kilif kilifteef gi waaye man un jaaxal bi le Sénégal la France dans l'Afrique occidentale française ak Sébastien qui nga administrateur des colonies la woon téere bi mu tudd le Sénégal sa conquête et son organisation kenn ku ci nekk xareb ngol-ngol bii ñu leen Lat Joor duma duma yu metti yi dañ koo dugal ci biir xareb loro bi ñu amee ndam ñoom te ndam la la leen ko may mooy des sarme non conventionnelles armes yoo xamante ni dañoo tere woon ku ko jëfandikoo tugal ñoom ñu indi ko jëfandikoo ko ca loro ñoom ñëpp bi ñuy bind Euh, dañoo waroon a ber xareb ngol-ngol ba ñu leen bome ber xareb looro bi ñu fayoo waaye ñoom la bataille de Loro xareb looro rek lañuy ñuy combat wala combat de Loro la ñuy bind ca ndoorte la nag ñu dugal fa xeexub ngol-ngol boobu bu ñu mànd woon dañuy ber xeex yi xeex bu ci nekk ñu indi ko waaye booy dawal wala booy jàng wala booy liir xareb loro bi ci ngay gis ni ci ndorte la indi nañ ci xareb ngol-ngol kon ngol-ngol ci weeru janvier la amoon la joor boom leen wala yooyu doon ñëw nag bi ñu egsee ñu dajale leen foofee ci ngigis ay fan yu néew fukki fan ak benn gannaaw xareb ngol-ngol ba muy juróom-ñeenti fan ci weeru janvier atum junni ak juróom ñetti téeméer ak juróom benn fukk ak ñeent kon ci weeru janvier 1864 ci lañu dajaloon nag ñetti xare yooyu doon ñëw doon wàllu si ngi gis yëpp te Penelope Prat jiite leen ci la ñu jóg nag toppi njàmbaar ji nga xamante ni moo leen toroxal ca ngol-ngol euh, Sébastien ci téere boobu di le Sénégal sa conquête et son organisation mu ngi wax ni topp bi ñu doon toppi Lat Joor mi leen duma woon ci juróom-ñeenti fan ci weeru janvier lañ ko door ci atum 1864 nee soldat yi biñu ñu mbasin di dekk bu yàgg nek ci boru sagata ñaari fan gannaaw bañ joggé ngi gis fukki fan ak ben ci wéru avril ci lañu egsi mbasin ci atum 1864 biñu ñëw fofu foofu ci lañu dégg ni Lat jor fi mu nek ak ak mbësin sorewul dara te it moom Lat Joor jekk na ngir xeex ak ñoom fa nekk moom Lat Joor du fa jóge ma nga nu fay xaar ngir nu jàmmaarloo ak mbom nee na ci suba sa di fukki fan ak ñaar ci weeru janvier ci ci suba gi gannaaw bi nga xamante ni bi may nañu soldaar yi benn bis ngir ñu noppalu ci la lieutenant colonel Pinet-Laprade dal di joxe ndigal ñu dal di jóg nag ngir jëm fa nga xamante ni fa dal nee nañu nii lañu demee maanaam nii la ñu tegtaloo ba ñuy dem jëm fa nga xamante ni fa Joor nekk nee na wutoon nañu ay wërkat ñuy wooye ay éclaireur nga xam ni ñooy jiitu dem xool mbir mi nu mu demee dellu si nee nañ éclaireur yooyu ñoom ak gawaru silmaxa jeng ñoom ñoo jiitu am na meneen mbooloom sol euh, soldaar xeeti soldaar lañu muy ab peloton bopp juróom fukki làppatoo mu mel ni baat bi wolof daf koy jëfandikoo ci ñi yenu saakook yooyu te lapto baatu tubaab la ci xeeti soldaar yi nga xamante ni jamono yi ay mbaam lañu daan yor kaake yi nga xamante ni muy bagage yi xare yi ñoom làppatoo yi ñoo ko daan sëf ci ay mbaam di ko yóbbu ci toolu xare kon juróom fukki làppatoo ànd ak ay tirailleurs ñoo topp ci euh, gawari silmaxe jang yooyu ñaar fukki ouvrier di ay nit ñu ñuul ñi nga xamante ni bii bi ñuy tabax kërug soldaar googu ci ngi ñoo àndoon ak capitaine Laurent mañu rey kon ñaar fukki liggéeykat ay ouvrier indigènes yu ñuul yoo xamante ni bii ci jeunes yi la bokk topp ca ñu toftal ca ñaar téeméeri soldats d'infanterie de marine ki leen jiite woon di bërilo ak ngànnaay yooyu ñuy wax ay obi te ñu koy jëfandikoo ñu deen di ay obicier kon toftal nañ ci ñaari obicier ci wet gi tam ñu indi fa juróom fukki nit yoo xamante ni artillerie boobu nga xamante ni mooy ngànnaay yooyu moo waxoon ni ay mitrailleuse la woon yooyu dañ koo tere woon ñu jëfandikoo ko Europe ca tugal te ñoom ñu indi ko kon juróom fukki nit ñooñu capitaine buñ doon wax Laberge capitaine Laberge moo leen jiite ñoom kon ñu topp ci ñaar téeméeri soldaar yooyee ñu toftal ci téeméeri soldaar yu bokk ci compagnie disciplinaire ñoom ku ñuy wax capitaine Balo moo leen jiite woon ñu toftal ci nag convoi ambulance jamono yooyu ñoom amoon nañu possibilité am ambulance ba ko gaañu ci xare bi mu dee bali yi daa des ci biir ñu mën koo euh, génne maanaam amoon nañu ambulance yoo xamante ni bi daal ñoo leen di fajal ñi gaañu ci xare bi kon ambulance yooyu ak ñaari officier yi ànd nañu ak ñaar téeméeri soldat ak juróom yoo bu xamante ni ci bataillon tirailleurs sénégalais yi lañu ñu bokk te ki leen jiite woon di capitaine Ringo ak juróom-ñett fukki Spahis yoo xamante ni capitaine Bauzin moo leen jiite woon ak gawar gi nga xamante ni bii ño bayé ko won jolof ngir ñew andak ak bidal bi dal ci kaw la Joor ak volontaire yi nga xamanteni ni ay nit yu ñuul lañu ñoom waruñu dañu doon dox kon tubaab bi li la wajal ngir fekki la Joor fa mu nek muni nak la mi jakar lool yoroon na ci ay gawar loo xamante ni bii moo ëpp sunu ñooñ nekk ci barab boo xamante ni bii soriwul woon looro foofe nag nee na fa la Lat Joor waajale woon ab xareem ngir dinu xaar maanaam foofe la Lat Joor dajale woon ay troubam maanaam ay soldaaram soldaar soosu nga xamante ni bii ñoom la doon wooye ay fantasin wet ga ñu jaar am na ay garab yoo xamante ni bii dox na seen diggante ak fi Lat Joor nekk ak ñoñom ñu ni nag foofu Lat Joor nekk am na ab diggante bopp war nañu ko jéggi waaye xaarunu ko nee na fantasin yooyu biñu jige sé rek ci lañu dal di soxi ndior ay sox jëmele ko ci ñooñ Lat nga xamanteni gawar gu bare bare bari ña nga fa kolonel na colonel para muy la para bi mu ñëwé ba jup fi Lat lu toll ci ñenti téméri mètre dafa taxawloo ay soldaaram ni éclaireurs yi nga xamante ni ñoo jiitu woon nañu dellu gannaaw dal di jox ndigal tirailleurs yi ak section de génie bi ngir ñu tàmbali soqi ay soxi quartier yi bi nga xamante ni bii mooy ñoo yore ngànnaay yooyu ñu doon wax sox yooyu ñuy soqi ñu ni am nañu ñetti peloton yoo xamante ni bii peloton d'infanterie la ñoomit ñu yor ngànnaay yooyu di soqi ñoom itam di jëmale ci ki nga xamante ni bii mooy Lat ak ñooñam ñi nga xamante ni ñi ngi jàmmarloo ak ñoom kon euh, bi nga xamante ni bii ñëw nañu ba jige lajoor lool ak ay ñooñam fi ñu nekk boobee nag ci lañu tàmbali soqi sox yooyu nga xamante ni bii ngànnaay yi koy yàbbi ñoñ kajoor ñi ceddu yi ànd ak Lat Joor miinuñu ko woon di dox njàmbaar gi jàpp leen ñuy songu ñi ñu jàmbaar lool di ñooñ capitaine Pinet-Laprade waaye ngànnaay yooyu nga xamante ni moom lañu yore li mu doon génne te ñoom miinuñu ko loolu tax na ba ñooñ la joor ñi ci faatu bari lool euh, nee nañu ñooñ la joor ñi ngi fayu ñi ngi riposte waaye nag doole yi tolloowut nee na bi ñooñ Lat Joor ñu bari di ci daanu ci lañu jaar ci sunuy wet am ñooñ dañ noo wër ndoom ba jaar ci gannaaw waaye nee na disciplinaire yi ngànnaay yooyu ñu yor li muy yàbbi ci ay bal ak ñaari officier yooyu nga xamante ni ñi ngi sànni li ñuy wax ay obi te ñu nekkoon ci sunu wetu càmmoñ ñu ngi faat lu baree bari nee nag bi nga xamante ni bii ñooñ la jor ñu baree bari faatu nañ ci liit googu nga xam li ñuy wax clairon ci lañu ko liit ngir bakk walla wax soldaaru tubaab si ñu gën a song ñooñ Lat Joor kon bi clairon bi sonné rek ci la ñu dem ba jigganteeg Lat Joor wala xareb Lat bi lu toll ci ñaar di soqi njóor ci seen kaw ñetti peloton di mbooloom soldat d'infanterie de marine yi jiitu ña koy daw di puus seen métrage yooyu nga xam ne dañ koo monte woon ci ay roue nga xamante ni li wax ay pneu yi oto di am moom lañu amoon monté ko ci ña ngay dawal jëm ci ñooñ la joor di soqi rek te ki leen jiite di barole nga xamante ni diggub xolu xareb la joor bi moom la ñu song ki doon wax capitaine Bozin mi nga xamante ni bii moo jiite woon escadron Espace yi jot ndigal ngir gën a songu ngir wut aw xàll ci biir xareb Lat Joor bi nene nag ci lañu song ngir wut aw yoon ci xareb Lat bi te booba bari naan bari goog nu yombul ndax ñetti junniy auxiliaire ñoo songu ngir wut xàll woowu ci diggu xareb Lat Joor mu ni nag xareb Lat Joor boobu mënatuñu woon dékku sunu sox yi ba tax na dañoo daal di tra dañoo daal di tasaaroo xare bi wet gu nekk ñu jëm fa nee na bom nanu xareb Lat Joor bi écrasé nañ leen ñi nga xamante ni ñoo ci faatuwul rek nee nañ li leen tee faatu mooy gaawaayu seen fos yi nga xamante ni bii moom lañu waroon loolu rek moo leen musal ba faatuwuñ kon tubaab yi mer ma ñu meroon ca xareb ngol-ngol ba fayyu nañ ko ci xareb loro bii ci jëfandikoo ay ngànnaay yu ñu doon tere te ngànnaay yi ñu yor wuute ak yi ñooñ Lat Joor yor lool mu mel ni bu fekkonte ni nañu defoon ca ngol-ngol ngànnaay yi dañoo tolloo kon Lat yor bom leen bokk yi kon pàcc bu njëkk bi jëm ci xeexu loro bi fii leen koy yemale di leen jox dox daje ci pàcc bi ci topp di nuyu ak ziyaara Sëriñ Abdul Aziz Touré ca Faas waaye sëriñ Mountakha Bachir moom Cheikh Mahamadul Mourtada ci États-Unis sëriñ Alioune Badara Mbengue ñi ngi koy ziare bu baax a baax sëñ Ibrahima Sow ji moom it ñi ngi koy ziare di ziare sëriñ du Gumbala fu mu toll du ñu nemmeeku di bég lool euh, ci euh, li ñuy def kon ñu koy sant bu baax a baax di ko gërëm di waaye di ziare itam xalifa euh, Kunta di sëtu Mabou Kunta moom itam sànn di rafetlu li nuy def lool kon sëñ Xalifa ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di la ziar mbokk yi kon fii la ñuy yemale xaaj bu njëkk bi mu doonoon seen mbokkum taalibe liggéeyaa konu borom Daaru Muxti Mbay Géey Sil ma di leen sant di leen gërëm te di leen jox dox daje ci ñaareelu xaaju xareb looro bi nga xamante ni wax naa leen tubaab yi ndam lañ fa amoon li tax ñu am ko kon ñu di leen soñ rek yeen yi abonné gul ngir ngeen abonné ci seen chaîne bi di xam sam rew tv ngir vidéo bu ñu duggal rek ngeen man ko am ngir mëna xam seen demb ñi ngi leen di sante di leen gërëm jara ngeen jëf waye français man na gooru sénégal ñi ñu dugal ñu dugal sénégal ñi génn gàddaay far dem ba faatu ñu joxe seen ganaay ndax ñu yaatu